ci ay doxu nemmeekoom moom njiitum ci réew mi di xamle ni pacte Idy 2024 fàttewul benn yoon tàggatu ndaw ñi rawatina gunge soxna yi. askan wi soxla na yërmande jëm ci ñoom ci wàllu njàng mi ci wàllu paj mi ci wàllu liggéeyu xale yi puisque chômage bi sonal na sénégalais yi sonal na sénégalaises yi. mais ndaw ñi la gën sonal. moom homme politique bi ne xam na jafe-jafe yi nga xam ne askan wi ñu ngi koy dund rawatina seeraayu dund bi ak ñàkku xëyu ndaw yi ba tax mu gis ne ëllëgu Sénégal dina leer. ndax dañu ànd xool jafe-jafe askan wi déglu askan wi xam li ko yitteel ci wàllu dundam ñu tabax programme bu ñu tudde pacte ginnaaw Pout Diamniadio Sébikotane Tivaouane Peulh la ñu jeexale bi la caravane Idy 2024 foofee ay junniy junni militant sol seeni t-shirt candidat ba noppi di yuuxu Idy Idy